député à l'Assemblée nationale la ci douzième législature suñu borom dogalaat encore ci ndigalu président de la république ma ñëwaat ci treizième législature kon au moins même bu ma yàggul ci wàllu politique xam naa un peu histoire quand même de l'Assemblée nationale et de la paire donc lu dul rafetlu bureau bi nu mu tëddee tey ma kontaan si lool bég si lool ndax lan au moins gis nañu quelques changement yoo xam ne ne te c'est positif ndax bureau assemblée nationale cinq cinq 45 cinquante 552 commune boo dajalee bureau assemblée nationale yëpp secrétaire élu maam di bureau yëpp boo leen dajalee motuñu 20 ñëpp mënuñoo nekk foofu ñii dañuy nekk ñeneen ñiy xaar affaire bii di di di alterner yàlla dafay te par un an la c'est à renouveler donc mun nga bañ a bokk si at bi bokkaat si beneen at te ku mel ne man Farba Ngom ma bokk si APR jarul ma koy laam-laame ndax loolu dafay toll diggante boo xam da nga koy ruus a wax sax. ndax suñu borom xam na ne mandarga la ci yow bu feeñ mais ma gagné toujours ma commune depuis deux 2008 2009 la commune des Agnam ay dans mon arrondissement di ko gagné di gagné les dernières élections locales à 96 pour cent virgule 78 ñëwaat département de Matam depuis douzième législature douzième législature j'avais avec notre camarade Seydou Diallo Koumba du Dem au non des femmes et moi-même y compris douzième législature ba mu jeex cinq ans ba mu jeex dañ ci ànd bëgg ndax lu borom réew mi defal Macky Sall dañu am engagement ak moom engagement bi mooy moom la ñu choisir ci wàllu politique mu nekk suñu xalif moom la ñu jiital suñu engagement ci wàllu politique donc lu mu xalaat mu bëgg koo tëral te loolu da koy arranger tax mu boolee ñëpp boot ñëpp rek dañ ko ciy gunge Euh, bi ñu yàlla may ñu fekkee douzième législature aussi fekkee treizième législature euh, gis ni assemblée doon doxee aussi muy am amélioration yu mag euh, commission yi nekkoon ay onze ñu yóbbu ko ba quatorze ngir ngir baral jéego yi ngir nga xam ne bu fekkente ne état bi indi na fa dara mu mun a gaaw yooyu yëpp ci yokkute la bokk te initiative président la donc dañ koy rafetlu li xew tey aussi ci kanamu ñëpp la xewe donc ñun mënuñu lu dul rafetlu li nga xam ne vraiment euh, xew na fa te aussi mu nekk ci ci tegu ci waxtaan tegu ci ku nekk joxe xalaatam dafa fekk nag bu demee ba tànnee fu jot rek euh, tànn yombul donc ñi dañ bu nit ki fàttali ko euh, biñ la tànnee nga ñëw ci assemblée nationale bi rek donc am na ñoo xam ne bay nañ leen bu dee ci gox nga joxe bu dee liste national ak nu munti demee am na ñoo xam ne bàyyi nañ leen te ginuñu leen mérité nekk député donc foofu rek ngay commencé natt sa bopp xam ne aussi bu bureau bi ñëwee aussi ñi dañuy bokk ñi bañ a bokk rek mais loolu man jàpp naa ne li fa xew moom comme ni assemblée doon doxe li fa xew te musu fa xew rek mooy yokk nañ commission yi euh, def nañ ci ay ay ay jéego nga xam ne diire bi euh, commission technique yi doon am dana wàññeeku dana gën a baral euh, liggéey bi dana gën a gaaw bu ci yàlla la àndee loolu nag yokkute la. nit booy wax dara di ko répondre da wax les faits li nga xam ne moom la yàlla dogal mooy réalité li am mais ça veut pas dire que jàppale naa Macky bu may mel nekk fi dama war a nekk député dama war a nekk membre de bureau loolu du xel. ñun ñii man mii nekk député aujourd'hui à l'Assemblée nationale Yaya Sow mii nekk député à l'Assemblée nationale est-ce que dafa gën ñenn ñi nga xam ne ne nekkuñu député amuñu benn ndongal tàmp responsabilité nationale politique tey ñu ngi ci département yi bokk ci ñuy sos APR ëpp ñu leen base politique ëpp ñu leen engagement ci Macky sal nekkuñu député d'abord loolu war nga ko jiital nga xalaat nga nekk député ba pare am na ñoo xam ne nous sommes 130 députés bokk d'une coalition ay différents partie yi nga xam ne ne bii day nekk fële nekk fële ñoom ñëpp ñu choisir tàbb Macky sal nekk seen président benn Bokk Yaakaar yooyu mbir ñu war ci jox kii kii ñu war ko ci xalaat ndax politique bu ngeen bokkee ay yëf dañ lay gestu waruñu jël mbir mi rek di ko aakimoo ñun ñuy APR déedéet ñun ñëpp a ko bokk coalition bi yëpp ko bokk donc Yaya Sow bu waxee loolu réfléchirul moom te tamit na xam boppam man d'accorduma si Yaya Sow musul yëkkati kàddu wax ma tontu mais bii baa daf ma naqari ndax nit da ngay am engagement ba pare am yar Macky Sall du moromam pas que may jéem a jaay fimis wala di woonee na man maa ko gën a jege Macky Sall wala ci Macky Sall laa bokk yooyu moo tax may tontu de dama bëgg nit ki nga xam sa bopp munoo jël engagement nga ne Macky mooy sama xalif ci wàllu politique ba pare doo appliquer ay xalaatam kon nag Yaya bu doon man maay moom man man maa wax man ba Ngom bu ma demee ba bu ma amul cër damay taxaw xuloo di ko yóbbu ci débat public damay jël mandat bi rendre ko démission démissionné bàyyi député bi lépp nga def li Macky Sall defoon Macky Sall dafa jëloon yëpp mbir mi bàyyi ko jàpp si yàlla moom it na jël mandat bi député bi nga xam ne ne bu buy war a jël kàddu di naan man liste départementale la suñ la boolewul ci liste doon mën a nekk liste départementale au moins la liste était Benno Bokk Yaakaar moomu ko dafa bokkoon ci liste bi bu doon man maa yaayaa so aujourd'hui damay jël ndombol tànk député assemblée national bi delloo ko ko mais duma ko def débat public ndax bu fekkee ne taxaw nga wax ŋàññi Macky Sall wax lu la neex te taxul ne yaa ngi nekk député assemblée nationale di dawal oto bi di encaisser carburant bi di jël salaire bi nga taxul naan député du peuple la peuple bi mu loolu du xalaat balaa peuple bi di jël seen dem ci urne voté la dañ lay boole ci liste ki la boole ci liste def la ci liste bi di Macky Sall moo jël validé te jamono bi mu lay boole ci liste xoolal ñaata responsable ñoo nekk ci biir département de Koungheul ou bien région de Kaffrine ñoo xam ne bokkuñ ci liste bi est-ce que daf leen ëpp base politique est-ce que daf leen ëpp engagement ci Macky Sall est-ce que moo leen ëpp taar wala moo lan la Yaya na yar na yaru dafa dafa war a yaatal xelam na yaru te tamit attention Yaya lii man maa ko tontu man sama xalaatu bopp tontu ma ci tur APR e ci tur parti ci tur Macky Sall sama xalaat bopp sama conviction bopp laay demee ni nga taxee nga ne yow da ngay am liberté di wax na xam boppam te tamit xam nañ ko bi ñuy tàmbali ci wàllu politique Alisson moo njëkk wax ne Alisson mii tey ex ex ex ministre moo ne woon ku jàpp yaasoo di nga ko bàyyi ndax bu dee man maa bàyyi yaasoo mais mu ngi koy bëgg bëgg a feeñal ni da ngay am yar bu fekkee ne aussi àndam ak Macky Sall dem na ba xalaat ne moo jëloon engagement boppam di ànd ak Macky Sall ko du ma utal Macky Sall ay noon il faut mu yaru il faut mu yaru mu xam boppam tension am na noo xam ne xam nañ ko de premier audio nag on va jusqu'à mille mille laa la wax mille maa ko wax te tamit xam nañu ñi nga xam ne dañuy lakkatu ji boot ji ginnaaw mooy lan ni da am ngëm am conviction ak engagement malgré loolu sax ci français laa ko wax mais moom moom maa ko maa ko gën a dégg français tuuti au moins maa ko gën a dégg français tuuti bu ñu ko waxee waxu conviction waxu engagement problème lay doon ci moom ndax xamu ko mu ngi doon wax ay premier deuxième mandat troisième mandat xamul sax li muy communiquer ndax xol la doon waxee baaxul ni da ngay am engagement nga déggu bu ma demee ba man li Macky Sall di doxal assemblée nationale ma nekk député bokk ci liste Benno Bokk Yaakaar Macky Sall nekk président de dem naa ba li mu doxal noonu assemblée nationale convaincre wu ma mbubbu député bi dama koy sumb ne Macky Sall allah jaaraama merci beaucoup banaa ko démissionné naa. fekkente ne euh, député yi mot nañ ay 97 defe naa. 97 yi boo xoolee presque APR lañ ay 130 nekk membre Benno Bokk Yaakaar donc loolu boo demee bay tànn dafay euh, jafe moo tax bi ñu déggee yenn réaction yi ah dañ koy ñaawlu nag ndax euh, du ñu faral sax di tontu camarade parti mais euh, euh, comme yaaya mbokk la aussi man maa ko présenté président de la république man maa ne président kii yaaya Sow la tudd yaaya kii mooy Alaji Macky Sall donc loolu du tey yàgg na donc nag su fekkente ne jël na li mu waxee dafa mel na ku xool intéret personnel rek ndax man mi gannaaw député bi aussi président conseil départemental la waay mus kenn musuma dégg ci réclamer poste wala leneen mais moom nu mu waxee wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu te aussi dafa am loo xam ne bu dee nakare aussi dañ koy def pootum biir maanaam am na foo ko war a waxee ak foo ko mën a waxee lu dul ci média ndax président mooy suñu kilifa ñun ñëpp te dañ ko war a respecté te dafa am ñoo xam ne nag aussi xam xamante nañ ci suñu biir ñun ñoo gën a xamante bu fekkente ne ne nga cëruwoo te xam nañ démb ak barke démb nu ñu meloon euh, avant président Macky bu mu ñëwee cër bu mu jox nit ñi ndomba tànk bu mu la jox loolu defe naa su fekkente ne seetlu na bu baax a baax li mu wax waru ko woon wax su amoon ay conseil nit nag dafay am ay conseil dafay am ñu muy waxtaanal euh, ànd ci ak yar ak teggin ak teey ndax euh, nag bari na loo xam ne nit ñi noppiwaale nañ ko te xam nañ ko te mun nañ ko wax waaye dañuy noppi donc nag ànd ak yar ak teggin vraiment dañuy ñaawlu li sama collègue boobu wax muy yaaya dafa nekk wax boo xam ne tegginuwun ci ci kanamu président de la république et puis ngay wax Macky Sall Macky Sall président de la république du Sénégal loolu la yàlla dogal et puis euh, dañu bokk ci euh, euh, keppaaram maanaam ànd ak moom te mu cëral ñu nag. bu mu ñëwee dafa cëral ñi mu àndaloon Macky Sall du fàtte mukk ki mu àndaloon waaye nag réew nu muy doxee nekkul rek àndandoo démb ak barke démb déedéet réew dafa am nu muy doxee loolu nag foog nga xam euh, xam ko xam boobu nag defe naa moom mooy li ko xaw a jaaxal xamul loolu parce que euh, nekk homme d'état aussi yombul euh, dafa am aussi nit ku nekk fu mu jógee ak fu mu cosaanoo ak li mu gëm ak nu muy doxalee donc loolu dafa am solo ci doomu aadama waaye li may ñaar rek nit ki xam vraiment makisal président de la République la président de la république dafa am nooy waxeek moom dafa am noo war a teggini ak moom sudul dul loolu sax respecté woo sa bopp ndax njiitu réew njiitu réew lu tudd